fii yàlla rek fi nekk calcul politique nekku fi kon nag Ousmane Sonko maa ngi lay gërëm di la sant parce que tu m'as convié aux activités du m wante nga may ma nag ma fé ma la ci kanamu askan wi nii Ousmane di nga ma jéggal ci kàddu yi parce que kooku su ma yoon newu ci wante su ma yoon mi ngi ci dama ne yéen Macky Sall la may déglu tu may seetaan te du ma waxantu si vous ne vous pas Ousmane Sonko bii septembre du ñu génn septembre te gars yi waa du ko jàpp. dama ne man du ma waxantu Ousmane Sonko bi nit dof wax na leen am na jabar am na doom am na ay mbokk. wante au-delà de Ousmane Sonko c'est la démocratie sénégalaise qu'on veut agresser te duñ ko nangu dama ne mbokk yi waxu démocratie lay wax place bi yàgg naa fi taxaw te yàgg nañ fi xeex te chaque fois yàlla def na ci surtout dañu am ci ndam mobilisation résistance loolu mooy démocratie loolu mooy patriotisme Je m'adresse aux étudiants de Cheikh Ante Diop. Mobilisez-vous pour le juin. Répondez à l'appel du M2D. Je m'adresse aux ambulants. Je m'adresse aux mécaniciens. Je m'adresse aux chômeurs. Je m'adresse à ce vaillant peuple. Levez-vous et mobilisez-vous. Il s'agit de votre avenir. bu leen may Ousmane Sonko mu leen di gën a gore parce que jàng de macha allah su ko neexoon tey dem wuti liggéey bitim réew wala dem def leneen. jàng na génn école mu wuti liggéey dugg administration di liggéeyam réew ba ñu dàq ko ci ndax la ndax askanam jóg leen te ngeen taxaw bugguñu xam ku ànd ak kan suñu yoon newu ci ñun Sénégal moo ñu ñor suñu eggee nag ci élection ku mu neex nga sandi sa xob ci ku la neex wante Sénégal bi à partir d'aujourd'hui il n'y aura qu'un seul otage dans ce pays ce sera Macky à partir de maintenant ce sera le seul otage dans ce pays parce que Macky Sall a décidé de prendre en otage la démocratie sénégalaise.